du ndak di ndokkeel Cheikh Mouhamadou Mountakha mbokk yi kenn ku ne ci ñun na wax ni Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla na fi yàgg li tax day kilifa gu mat kilifa te fees tell woyof toyyi te bëggul xoolul lu dul liggéeyal Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul kon seex Cheikh mu Mountakha yàlla fi yàgg di nuyu sunu kilifa yi toog ci wetu monsieur le président de la république muy Cheikh Mahamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Khadir di ko nuyu nuyo bu sell di ko jox wàccuwaayam di nuyu Serigne Ahmadou Badawiyu di sunu waajur di sunu xarit di sunu soppe di nuyu Serigne sëri Fantama di mi nga xam ni liggéey bi ci moom la ko yàlla jaarale maam ci taxawaay bu rafet ànd ak sunu xarit sunu wëllëre sëriñ xaadim ngom sëriñ xaadim ñëpp ngi lay sant ñëpp ngi lay gërëm ndax taalibe nga te sa taxawaay rafet na di nuyu le président de la république sa Macky Sall danaa ñëw ci moom tuuti mbokk yi sëriñ Mamour am di wax na ko léegi sëriñ Touba day xéwalu àdduna ak alaaxira cheikh saadu abihi wax ni alcheikhu ahmadu nicmatun awlaaha hadi alxalaayiqa kullaha mawlaaha bi nu tuumaalee sëriñ tuuba teg ci moom ay tuuma yu metti cheikh saadu abihi weddil ko ko ni wa maa aybuhu illa ibadatu rabbihi wa nafaul wara fi subhihi wa masaa'ihi ni bu fekkee am na benn ayib ayibam mooy jariñ mbindeef fii ak jàmm yàlla guddi ak bëccëg suba ak ngoon kon kooku bu nu ko yàlla joxee mu liggéeyal sunu borom ndax Serigne Touba sunu borom moo ko tegtal rasulullahi dallan yallaahu ala muhammadin wa xaadali muhammadin li samadi sunu borom moo ko tegtal rasulullahi mu dem liggéey rasulullahi ba rasulullahi gërëmal ko boppam ñu am warteefu nag liggéeyam boobu ak lége yooyu mu ñu bàyyee ñu war koo téye kenn jiituwu ci suñ génération bi war a dem jàngi wuti xam-xam ndax moom xam-xam rek ko ñoroon bindee ko da ngay jihaar dañu leen déedéet yoruma ngànnaay di fital jihaad ñu ni ko lan mooy sa jihaad mu ni inni ujahidu bil ulumi wa bit tuqaa abdan xadiman wal muhayminu saahidu sama jihaar mooy xam-xam sama jihaar mooy ragal yàlla te al ilmu yarfau baytan laa imaada lahu wal jahlu yuxfidu baytan isa wa sarafi xam-xam mooy téye askan xam-xam boobu nag nañ ci góor góor dem jàngi ko wuti ko buñ ko amee mooy dini complexe ci ñun ndax Serigne Touba dafa liggéeyal yàlla bala yàlla gërëmal ko boppam xam-xam boobu mooy tax complexe denc ñun kon sëriñ xaadim lii nga indi ànd ak sa kilifa gee muy sëriñ ahmadou sëriñ sëriñ fantamadi ñu ngi la ciy sant di la gërëm di ñaanal sëriñ muntaxa président de la république danaa ñëw ci yow tuuti pouvoir boolewul ak Touba. pouvoir boolewul ak Touba 1997 nga njëkk a ñëw Touba màggalu sëriñ Abdou Aziz Baara ànd ak ma Masseck Ndiaye yàlla na ko yàlla yërëm booba kenn xalaatul woon ni Abdoulaye Wade dana nekk président de la république ba ngay doon dara ci réew mi nga ñëw jàpp njabootuk Serigne Touba jaare ko ci kër Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ndax ñoom nga njëkk a dugg Touba 2000 yàlla boole la ak sëriñ Mbacke Soxna loo mu jàpp la def la doomam def la xaritam 2001 ñu def la ministre energie mine hydraulique li may wax Moodu Fall nay da mat na ma ci seede ñu ànd dem ci Serigne Saalihu bi demee nga wax say yéene ci tuubaa ci ndox mi ba nga paree ma jël kàddu sëriñ Maxtaar Jaxate mat na ma seede ma nga ne toog ma ne ko Mbàkke kii fi ñëw de dafa jaay njuréelam jënd ko ak taalibe te bëgg-bëggam ak yitteem du dara dul dëkk bii di tuubaa li fi Serigne Touba ñaanoon boromam mu am wa maskani sallim minal fujjaari wam nun alal ahla bi ma in jaari dëkk bi leer moo yor courant bi ndax bu leeree saay-saay yi danañ daw beneen bi ci des ndox mi daan manqué ci màggalu tuuba te yàlla dox na ko ndox mi nga ñaanal ko ba yàlla saafara loolu mu ni bëreet jóg ni bu ko defee dana dajanteeg sama ngërëm nga def ko ñu def ab diir ñu ànd nga ñëw sëñ Sidi Moxtaar muy doog a sañ ci Tanime guddi ñu jóge magal suñu Abdoulaye si Bara nga nekk ministre des mines énergie ba tey nga jiite délégation Abdoulaye Wade ci màggal gi bi nu paree ñu dem sëñ Sidi Moxtaar mu ne ma Basiiru ma ne ko Mbàkke mu ne ma dama bëgg Mbàkke mii nga wax ko naa nga ma ne ko déedéet sa dooma ni nga jur Ousmane nga ko jure mu ne la fii dama koy doog a sañ ci ndox mi doyul courant bi doyul nga génn jël sa téléphone woote loolu saafarawu loolu doyatul yàlla boole laag moom mu nekk xalifa général de Mouride. yàlla boole ak Serigne Mouhamed Lamine Bara Mbacké Falilou nga doon jàmbaar liggéeyal Serigne tubaa boo liggéeyee Serigne tubaa bay dem nag danañ la sant danañ la gërëm ndax ñun njabootuk Serigne Touba ku def lu baax ci ñun wax ko man lam yaskuri naasa laa yaskuri laa ku sant nit boo sant yàlla yàlla du nangu loolu. université bii bi ko Serigne Touba nazaree lii banal xuduusu madarasatan biha yazulu azawal jahlu wal kabadu la ñaan boromam muy université bi Serigne Mountakha yëkkate ko nga ànd ak moom. xar sa tànk tubéy ba mu taxaw jàppale ko ci ci lu feeñ ak ci lu nëbb alaaji Mouhamed Lamine Baara Mbakke Falilu jaar fi nga jaay sa njureel jënd ko taalibe jàppale ko taxawu ko liggéeyal ko ba jëmm ji ñëw nga xam ne wax naa ne mun taxa ndimbalal sunu borom la ci jullit ñi mu ñëw doon sëriñ Touba yëkkati lii nga ànd ceeg moom ilaa Touba bi dañ koy war a wax ndax bu njëkk ku daan jóge Touba trois heures de temps ngay def pour ñëw ndakaar wala quatre heures de hôpital bii nga def Touba dañ ko war a wax ndax yamale woo lu baax loolu ci Touba këru diine yëpp nga ko yamale te Serigne Touba dafa waxoon ni fa kullu wirdin yulidur murida li hadratillahi walan yahida siwa un intama ila al jirani aw intama li ahmada tijani aw li sawahuma min al aqtabi iskulum xatan ala sawabi nga ñëw universaliser lu waxi Serigne Touba jooju yamale këru diine yëpp boo demee Tiwaawan def nga fa dara boo demee Njaasaan def nga fa dara foo dem def nga fa dara Sëriñ Tuubaa jàngal ni fala tuaadu man raaytum faahu yuxruju laa ilaha illa muhammadu rasulullahi ku ngeen gis mu tudd baatu laa ilaha ci gémmiñam bu leen ko def noonu nga ñëw di matéri matérialiser loolu ci réew mi di wax lu baax di def lu baax bay dem kon jaadu na ñu ne la jëf jaadu na ñëpp ni la jëf ndax lii nga def barki de moo njaay bu la neexoon nga yebal la culture wala nga yabal ministre de l'intérieur premier ministre ñëwoon na doy na waaye ba nu ñëwee sëñ Muntaxa yabal leen ci yow dañoo ñëw nga yëkkat teraanga ju bari jox leen ko ba pare ni wax recevoir at Xaadim Ngom mii ni ko pare gu ma ak yéen nee nga nag boo fi jógee da ngay dem créer ji fondation pour sociale danaa ci ñëw tuuti loolu man bettuma ci yow li tax bettuma ci yow mooy ku ñuy wax ma jama si la dëkk ca Touba doomam dafa feebar am problème mu xol mu ñëw sama kër wax ma ko ba ngoom nekk fa ak Papa Samba Diop mële ma ñëw ànd ak ñoom ñëw wax la ko nga ne ñaata ma koy faj mañ la nangam nga génne joxe ko kon yow ko xam social nga Xaadim Ngom mii wax ma ni ma sa mbaax moom France la nekk nekk médecin nekk docteur cardiologue ni ma président li tax ma xam ni ku bari yërmande la ci wàllu faj ak dimbali doomu aadama yi lim ciy def kenn xamu nu mu toll. bu ma ko waxoon tey sénégalais yi dana am beneen gis-gis wala beneen xool bu nga koy xoolee man mi mat naa ci seede sama soxna feebar na. war a dem France yàlla dimbil nañu jox nañ ñu ko mën a faje waaye ban ñëwee ci yow da ngaa yombal lépp jàpp lañu ci ba yàlla defal ko jàmm kon ñu ngi lay sant di la gërëm yoonu murit bég nañ seen xol sedd na lii nag li tax ma koy wax ba ma ne yow lañ ñëpp dañ ni ma du moom ba ma ne yow la ñëpp dañ ni du moom yàlla dogal nga ñëw góor góoru def li nga def politique dama koy sant man du ma ragal bu ma taxawoon bëgg a politique damay politique ganaaru kenn nenu ma mais man politique ma te moom it politique indiwu ko fi dafa jëf lu baax ñu war ko wax yaa ngi fi nekk 12 ans mbay dem dans 3 mois 4 mois ku la soxlaat doot la fekk pale sa kër mère la lay fekk kon ñu ngi lay sant di gërëm li nga defal Serigne tubaa Serigne Touba tax nga def ko xaadim ngoom mii nag ñu ngi la koy dénk projet yi mu nekk mu jëm ci mise bi ànd kook Serigne Serif Mële nga jàppale leen ni nga jàppalee Serigne Mountakha ci université bi ndax mise bi sëriñ bi génnewu ko yóbbu ko fenn ci biir université bi la ko jël dugal ko fa ndax ku ne xam na ne université mënta dem san xam-xam mënta dem sans démb ndax sëriñ yonente bi sallallahu alayhi wasallam sëriñ Tuubaa da koo dond moo tax mu doon xaadim rasul kon lépp lu am ca Medina war naa am ci moom ci Touba ndax mooy liggéey liggéeykatam mooy ab jaamam kon monsieur le président de la ñu ngi lay sant xaadim ñu ngi lay gërëm fi nga teg solo loxo foofu la bul ragal bul gestu bul tiit ndax li anna naasa yatakallamuuna xatta ala al mayt fi xabri yi bul yittewoo wax nit ñi ndax nit ñi fu nu toll dañuy kaa dugg groupe kaa di nekk topp kaa camp point com camp point waaye bul xool loolu yow góorgóorlu ci liggéeyal Serigne Touba ndax Serigne bi moo ne waqada hawaïja allatina daamu fi xidmati wahab lahu maaraamu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu jërëjëf Cheikh Mamadou jërëjëf ñoo ngi gërëm Malikia TV taxawaayam rafet na ak Lamp Fall ak TFM ak ak Imedia ak DSS TV télévision yépp ñu ngi leen di gërëm léegi nag dañuy jox kàddu gi ñu jëkkanteeg waxtu wi dañuy jox kàddu gi sëriñ Ahmadul Badiyu mu Cheikh Mat Mbakke mi nga xam ni sëriñ bi dénk ko université bi mu ànd koo ki bokkam di ko liggéey su ko defee nun ñëpp ñu déglu ko sëriñ bi bisimilah bisimilah Mbakke bisimilah jàmbaar nga gëm nga sëñ Bamba sa maam yaa ngi liggéey bisimilah Mbakke auzubillahi min alsheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alambiyaai walmursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahabati ajmain assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñi ngi yëkkati kàddu yu nuyooy lislaam yu sell yooyu di ko jëmee ci mbooloo mi fi teew yépp waaye alxaji Macky Sall njiitu réew mi ak mboolem kilifa yi nga xam ne teew nañ fi ak mboolem jullit yi fi teew ak mboolem bokki taalibe yi ak mboolem ñi ànd ak ñun jataay bi di yëkkati kàddu ci ndigal lu cheikh Mouhamadinil Muntaqa mu wax ne nañu ñëw fekke si jataay bu tedd bu màgg bii ñuy war a mottalee ayubis gi nga xam ne dañ koy defoon ci gëstu ak jàngat ak nafaraat liggéeyub Cheikhul Khadim radiyallahu anhu moo tax ko nuyoo bi ak cant yi ak ñaan yi dama koy bàyyee Serigne Mouhamadul Bachir mooy wax ci turu Cheikh Mouhamadul Muntaqa damay jëfe ndigalul Serigne bi li wax ne jataay bi dafa dugg ci liggéey bu mag bii nga xam ne moom lay defal tu moom lay def Touba muy université wala mu jàmma wala complexe Cheikh Ahmadul Khadim pour l'éducation et la formation sëriñ bi wax ne liggéey bi ñuy def lépp foofu lay dugg ndax liggéey boobee la ko tax a jóg mooy sàmm yaatal ndono ak njàngaley Cheikhuna al Khadim radiallahu anhu te loolu mooy njàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi léppam lislaam la léppam diine la léppam sallallahu alayhi wa sallam kon bu ñu wax ne bu ñu waxee turaas wala jeexit wala li fi sëriñ bi bàyyi loola mooy rek lu sallallahu alayhi wa sallam ndax ca njëlbéen rek la waxoon ni moom li ko tax a jóg mooy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bil mustafa nawaytu maa yujaddidu sunnatahu lgarra wa indi ahmadu loolu la tàmbalee ab liggéeyam te loolu la sax sallallahu alayhi wa sallam nag nis koy donne wala nis koy wuutee mooy borom al anbiya al ulamaa warasatul anbiya waaye anbiya yi deesu leen dolle wurus ak xaalis ak alal xam-xam lañ leen di donne ak jaamu yàlla mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu am fi ayu bés gu yaatu nag gu am solo di jàngat li nga xam ne mooy li fi sëriñ bi bàyyi muy patrimoine boobu mën nañ ko wax ñaari xaaj la bi ñu mën a teg loxo ak bi nga xam ne su ko teg loxo biñ mën a teg loxo itam ni ma ko waxee rek lépp mooy lislaam photo yii nga xam ne moo doon jëmmal jataayu ayu bis gi lépp day dellu ci diine sëriñ bi di teg xeeru juma sëriñ bi di julli kon loolu dellu na ci lislaam wa anna almasajida lillah inna salata kanat ala almuminina kitaba mawquta wa aqimi salata li yi walla li dikra kon sëriñ bi foofu ñu ko wane mooy fi mu nekkoon mooy diine photo bi ñu njëkk a gis moom itam baraag bi nekk ci gannaawam jàkka la kon kuy kuy fàttaliku sëriñ bi yaa ngi fàttaliku diine li fi des ci lu ñu teg loxo ci lim fi bàyyi ba tey ay